nataal juróom bu mu weesoo aadama ak awa xale yu bari juddu nañu ay millions nit ñu ngi dund tey ci kaw suuf nit ñoo ñépp ñu ngi gën a soxor te di def lu bon fépp yàlla gis na loolu yépp te am mer lool ci nit ñi ci loolu yàlla ne dina mbugal nit ñépp ak mbindeef yépp yu mu sàkkoon benn nit bu tuddoon nóoyin moo bëggoon yàlla te daawul def lu bon yàlla ne nóoyin tabaxal gaal gu mag te man dina yónnee taw bu mag muy doon mbënd muy rey ñépp luy dund nooyin déggal yàlla ñetti doomam yi dimbale ko ci tabax gaal googu waaye nit ñépp di waaye nooye bañ leena déglu daawul noppee wax nit ñi ñu tuub seeni bàkkaar te topp yàlla benn bés yàlla ne nooyin duggal ci biir gaal gi yow ak sa njaboot bépp nooyin jël ak moom ay rab ak i picc yu bokkut nu ko ko yàlla waxe woon yàlla ci boppam tëj buntu gaal gi boobu naaj baa ngi rey rey ci kaw asamaan te tawagul woon